ñu ngi am mbégte ak contentement tey ñëw fii ci hôpital El Hadj Ibrahima Niass ci li nga xamante ni tey moo ñu tax a jóg muy journée sociale li nga xamante ni tey dañ ko jël dugal ko ci suñu calendrier ki nga xamante ni mooy calendrier de campagne ñu ngi am mbégte ci dalal bi nga xamante ni tey. ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq hôpital Ibrahima El Hadj Ibrahima Niass dalal bi ñu dalal fii liñ fi dajale nag mu mbirum social bi nga xamante ni tey ñun ñi nga xamante ne ay ndaw lañ di ànd ak ki nga xamante ni mooy madame le maire Mariama Sarr dafa nekk luñu tàmm dafa nekk lu ñu xam dafa nekk ci li nga xamante lu ñu yare dafa yaakaar naa ne képp koo xam nga xamante ni xam nga madame le maire Mariama Sarr xam nga ko ci social xam nga ko ci ndimbal waaye xam nga ko ci accompagner néew gi doole yi. ñu ngi délégation bi di am euh, contentement si geste bi ngeen def yaakaar naa balaa ñuy anam si li nga xamee ne moom lañ xalaat si activité bi ngeen def da ngeen ñuy may ñu sant madame le maire madame Mariama Sarr bi nga xamee ne moom moo. yónni la commission des jeunes de Benno Bokk Yaakaar pour ñu ñëw def sa don bii donc bu am solo la ñu ngi dans un hôpital régional hôpital régional madame le maire dafa am chance mu abriter la commune bi nga xamee ne moom moo dalal hôpital bi gën a mag dans le Sine Saloum et que ñooñu ñëpp hôpital bi lañ yaakaar donc yaakaar naa dafay nekk sagu madame le maire hôpital bu toll noonu ñu xool naka lañ koy accompagner et lii geste la bu ñëw dooleeku ci geste yi nga xamee ne jot nañ ko def donc yaakaar naa bu fekkee participer ngeen ci action sociale yu mel nii à travers cette journée sociale dafay nekk lu am solo loo xam ne dafay rendre service à la population mais aussi en tant que acteur dafa leen di formater ngeen xam ne ëllëgaar ci biir quand vous serez aux responsabilité am na ay actions yoo xam ne yuy jariñ population bi la. li ma bëggoon a rek mooy féliciter les donateurs yi nga xam si dañoo fi ñëw pour lii ci turu madame le maire. bëgg-bëggu askan nag dafa bëri ni ñu waxee nii ni ki li muy liggéey li muy jot këram moo koy wutal boppam mais aussi boo jiitee ay nit fa ñu somm nga jël fa fekk wala fa ñu am ay jafe-jafe nga jël fa fekk li di dafay rafet. ñooñu nangu ni li ngay def nii gis nañ ci seen bopp rafetlu nañ ko parce que dalay jox courage pour nga gën a mën a wuti pour gën a mën a def ci ñoom kon bi mu posé tey jaar na ko ci monsieur Lo ak gërëm di ko ci félicité ci turu directrice parce que ñii ñëw fii di bu ñu bu bu doon seen coobare bopp bu ñu fi ñëw boo xalaatee ñi nekk fii ne coono met coono am na war a jël sa bopp en charge war a war a wut naan ku la fekk foofu jox la loo xam ne si day tax yow sa bopp nga fàtte sa coono en tout cas bu doon benn minute wala une heure benn bis di nga féex ka defal ko defal te na ñaan dañ fi ñëwoon tey ci ndigalul soxna Mariama Sarr maire de la commune de Kaolack nekkat président comité communal bu bu coalition benn bokk yaakaar en tout cas de la majorité présidentielle suñu tànk du tànk leen rek la woon mooy dañ fi ñëwoon pour massawu malade yi nga xamante ni dañu tëdd tey ci hôpital ku nekk xam na ne ñu ngi ci ñu ngi ci période de campagne te période de campagne bruit bi na bëri musique dina bëri caravane dina bëri te ñu bu ñu romb hôpital wala ñu wër hôpital peut-être duñu ci bàyyi xel donc malade yooyu xam ne ñu ngi ci hôpital pendant presque deux semaines ñu sonal leen ci ay bruit ay ay ay dérangement dafa jaadu ñu def benn geste te bi geste bu symbolique la rek lii tuuti la ci yenn Mariama Sarr ak def ak jëfam ci social lu tuuti la mais dañu dañ ko def symboliquement ba lii passé bu lii passé ñu soo ko xool de façon plus symbolique ak de façon plus consistante ndax lañ mën a def pour gën a accompagner hôpital bi ci yenn besoins yi mais li jeunes yi jàpp muy activité phare bu ñu fas yéene def mooy activité don de sang parce que tey seetlu nañu hôpital Ibrahima Niass parfois dafay confronté à des difficultés de sang pour yenn maladies donc ñu jàpp ne activité boobu ça va venir à son heure allah bu ñu paree ci campagne bi ñu def ko ñëw lu am ci poche de sang ñu ñu remettre au directeur pour que ñu jàppale ci hôpital bi nga xam ne dañuy feebar soxla soxla woon daal. moo doon kàddu yi li ñu indi tey ay ay ay ay kit rek jëm ci jaay wàll jëm ci fruit ndox boisson ainsi de suite pour masawu coono suñu ay sœur masawu coono suñu ay yaay masawu coono suñu ay massa wu coono suñu ay suñu ay nijaay ak suñu ay rak yi nga xamante ne tey yàlla dogal na seen seen seen seen seen en tout cas yàlla dogal na tey ñu ñu nekk ci situation feebar te di ci hôpital bi